noo ngi santati Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul waaye di delloo njukkal Baabil Muridiin maam Seex Ibrahima Fall di ñaanal Sëriñ Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi te wér lool mbokk yi bu ngeen gisee jataay bu yànj bii ñu toog kilifa yu baax yi ne ci sunu wet ak sunu waajur yi nga xam ne ku leen xool ci seen toogaay nga xam ne diine rek leen ñor ab woote rek ko waral waaye ñi ngi jiital ci nuyoo bi ni nuyoo ci jataay bi muy kilifa yu tedd yi nekk ci suñ ginnaaw di soxna Sooda moom Serigne Khadim Awa Ba kenn ku nekk xam ko ci fédération ndeyu askan wi nga xam ne euh, rakkam ji di soppeem di xaritam soxna maam Jaara Mbàkke bintu Serigne Mamadou Muntaxa Mbàkke moo ko jiite noo ngi ñaan yàlla yàggal leen ci sunu kanam yàlla gën leen a dëgëral te yàggal leen ci ànd bi nga xam ne moom moom la ñu ànd te fas ko yéene liggéey soxna jaara kon mbokk bu ngeen gisee jataay bi nag muy jataay woote la woote bi fan la jëm ci julli gi nga xam ne ci la seen maam jëloon der bi lal ko ca kaw géej ga waxoon wax jure jooju muy bay bi ma tàmbalee léegi muy jël der bi lal ko ci kaw géej gi julli ca julli gu rëy gi soxna maam jaara Mbàkke bintu sëriñ mun taxaa di ko woote waaye ànd ko jëwriñ ji nga xam ne nag moo jiite liggéey bi muy kan di soxna Adja Soodu Xumma mi ñëpp xam ab cëram sëriñ Mamadou Muntaxa Mbàkke woolu ko jiital ko ci liggéey bi waaye nag woowaat sëriñ Yuusu Jóob mi nga xam ne moo jiite daara Hizbut Tarqiyyah ngir mu jàppale ko ci wàllum njàngum xasida mi ngir mu jàppale ko ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu culturel yal yàlla gën a yàggal ànd boo bi kon bu ngeen gisee jataay bi dañuy ubbi kàddu yi ndax am na jëwriñ yoo xam ne ñoo war a jël kàddu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu waax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sëriñ Mouhamadul Muntaqa xalifatul am li tarixatil muridi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lim yéene liggéeyal maamam ji sell ja suñ borom defal ko ko na mu ko bëggee ci barke Seexul Xadim comme ni ko jëwrin maam as waxee rek jotaay bii bu ngeen ko gisee ngeen xam ne jotaayub lislaam la jotaayub diine la waaye jotaayub wooteb julli gi nga xamante ni jàmbaari lislaam jàmbaari diine jëwrin alayhi salaatu wasalaam julli woon na ko ci géej gi woote boobu lañuy ñu woote tey fii ànd koog mboolem fédération bi nga xamante ni moo nekk soow jant waaye nag ci biiru wooteeg soxna Sooda Xumma mi nga xam ni moom la sëriñ bi jiital ci liggéey bi comme ni ko jëwrin maam as waxe ci biiru yaatalam nag la soxna jaara bintu sëriñ Mouhamadul Muntaqa ànd ak mboolem fédération maam jaara bu sow jant ngir dugg ci biir woote boobu ak yaatalam googu ndax la sëriñ Saalih Mbàkke radiyallahu taala anhu doon wax rek du ma fekk lu yàlla yaatal ma di ko xatal kon soxna si ci loolu la nekk ci yaatal ngir bëgg umma bi yëpp jariñu moo tax mu woote jotaay bi kon ñu ngi ciy woo mboolem kuréel goo xamante ni yaa ngi soowu jant di yëngu ci mboolem lu baax rawatina daaira yi nga xamante ni dañ leen di tudd di tudd Serigne Touba waaye rawatina daaira yi nga xam ne dañ leen di tudd di tudd soxna Jaaratullaahi maam Mariama waaye rawatina daayira yi nga xam ne dañoo jokk ànd ak soxna maam jaara bintu Serigne Mouhamadul Muntaka tabbi ci biir fédération bi nga xamante ni moom la ñuy woowee fédération soowu jant bu nday askan askan wi ci njiita soxna jaar moom Serigne Mouhamadul Mountakha kon woote boobu moo tax ñu teew fii ñun ñëpp waaye nag eh, di soññ mboolem fu waay nekk te bëgg lu baax comme ni ko Serigne Issakha Mbacke di waxee ndax liggéey bii dafa toll foo xamante ni ndakaaru gépp ñoo war a boole seen bopp nos seen bopp xam ni bisum ndakaaru la bisum sowu jant la kon fépp kuréel nekk ak foo mën a nekk te yëngu ci lu baax soxna maam jaara Mbacke mi ngi lay woo ci liggéey gi nga xamante ni. moom la sëriñ bi julli woon fii ci ndakaaru kon ñi ngi tàll loxo ñëpp di woo umma islam bi yëpp bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ daw képp koo xamante ni ñëw nga fa da fekk soxna jaara ak mbooloo mi nga xamante ni ñooy fédération bi waaye ànd ko mbooleem koo xamante ni nag bëgg nga lu baax te diine ñor la te lislaam ñor la doonte nag ci beneen wàll nga bokk it soxna jaara mi ngi lay woo ci biir woote soxna sooda googu asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi leen di nuyu lu bari ci turu soxna jaaratullah maam mariama bintu cheikh mouhamadou muntaxa suñu jëwri doon ka ne ñun ñooy kilifaam tamit mooy suñu jëwrin ci liggéeyu poroxaan bi ñuy woote nag bis bu màgg ci ñun bis bu rëy ci ñun waaye nag dañuy njëkk a nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha te di ko def ci ndigalam tamit tey ñaan tamit mu yàgg koo tooge boog njabootu sëriñ Touba gépp ak umma islam gépp bépp waaye nag di ko wootee tamit ci turu soxna Sooda xumma sama turandoo moom mi nga xam ne daf ko yàgg a taxawe yàgg na koo taxawe du tey waaye nag li tax mu di ko taxawee tamit mate na ko ndax lépp looy def te jiital ci daayira maam jaare yi moom dangaa delloo buum ca boy boy ba rek ndax lépp soxna jaara la lépp parce que soxna jaara ba la ndax sëriñ bi moom doon ko ne kenn defalu ko dara tamit ba mu des soxna jaara jaara moo ko jàngal julli daan ko waar tamit ci mag ñu baax ñi ñi nga xamante ne loolu lañ daan def yeneen ti yeeg ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon nee na ci soxna jaara la ko déggee nee na taxaw guddi ci soxna jaara la ko dégge ñun julli géej gii rek lañ am ndax Cheikhul Khadim rek la julli jaral mu sànni daram bi ci mbeex bi ànd kook Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd kook malaayka yi ànd kook borooma nee na bi mu koy def defu ko ngir xar baax wala dara da koo def rek gëm ne gëm na boroomam fu mu nekk rek boroomam la koy fekk kon julli géej gi moom ñëpp a ko war a teewe te ñëpp a ci war a sant Serigne Touba ba muy julli ci géej gi kenn julliwu ci ba muy julli ci biro Ndar ba nga xam ne moo jiitu woon kenn julliwu ci kon ñun ñëpp ñëpp ñoo ngi leen ciy woo rawatina nag jàmbaari maam jaare moom soxna Sooda xuma da leen a invité dañoo invité ñun ñëpp daayira yëpp la invité waaye nag daayira maam jaaraa ci raw nag ak woote bi li ko waral rek mooy julli géej gi tubaab fakàlla macha allah sunu jëwriñ soxna Sooda xuma àndandoog sunu jëwriñ soxna maam jaar mu Cheikh Muntaka mi nga xam ne moom lañ jox liggéey ba ca Poroxaan tubaab fakàlla macha allah mu ci jëf jëf ju rëy xam naa soxna Soda tubaar fakàlla macha allah yàlla na yàlla yokk taxawaay bi te gën laa dëgëral tubaar fakàlla macha allah ndax sëñ taxaa li mu seet ba jox la ko tubaar fakàlla macha allah yàlla na la ci yàlla jàppale nga woon nag sunu jëwriñ soxna jaara macha allah pour mu woote ci liggéey bi mu woote ci nag woote bu am solo woo ay mbokkam woo waa daayira bi woo askan yëpp nag pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi nga xamante ne muy liggéey bi nga xam muy liggéey bu rey muy ku ne xam ne ne sëñ Touba moo julli woon ci géej gi kon nag mu lool muy événement boo xam ne murid yëpp ñun ñoo ci war a àndandoo kon boog ndokk xuma jërëjëf bi nga ko xamee ba ànd ak sa jëwriñ sa rakk sa lépp bu soxna jaara mu def mu taxawaay ci taxawaay bu matte nag macha allah andi koog ay mbokkam waa fédération baa ngi tuba tubaar fakàlla macha allah waa daayira bi yaa ngi toog waa daayira West Foire ñu ngi woon nag waa Ngor waa Yoof di woo daayira yëpp ñi nekk Dakar koo xam ne yëf yi kenn ku nekk ni ko soxna Sooda bëggee moo tax mu ñëw ba ci jëwriñ soxna jaara maam jaara mu taxaa ne ko pour mu ànd ak moom liggéey bi kon boog moom tamit soxna si def na ci taxawaay bu rëy rëy woo na àddina bi yëpp rawatina waa Ndakaaru ñi ko commencé Yoff Parcelles ba fépp foo xam ne raa ngi fa yëngat rek ñu bëgg nag ni ko sëñ bi xoole ba xam ne mate na ko sëkk moom soxna soo Soode tubaar fakal mu jox ko ko moom tamit wëlbatiku tamit woo soxna jaara mu sëñ mu taxaan ndax gis liggéey bi muy liggéey ca Poroxaan kon boobu ñu ngi woo ñëpp di woo nag mbokk taalibe yëpp bàyyiwuma kenn mboolem ko sam numéro nekk si daara ji rek Baye Fall baa ngi lay woo ak ku sam nekkul da nga bëgg liggéey sëñ Tuubaa bëgg a liggéey soxna jaara ñu ngi lay woo ci julli géej gi bàyyi faalu maam jaara mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn góor jigéen mag ndaw maa ngi woo ñëpp ne ñëpp ñëw julli géej gi teewu fa ànd kook suñu jëwriñ soxna maam jaara mbàkke defe ko ni mu ko bëgge ànd ak yar ànd ak i teggin topp nan ko daan defe nu defe ko na ni mu ko bëggee rek ñu defe ko noonu képp kuy ñëw nag weer balaa bu ko fàtte woo naa ñëpp ne ñëpp teel a ñëw kenn ku ne boo xëyee ndékki na nga sol sa mbubb fas yéene ñëw toog ànd kook soxna si ba mu jeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe man seen mbokk soxna Astou Diouf ñoo teew ci jotaay bi tey jii ci bërëb sell bi am li nga xam ne moo ñu fi dajale muy jullib géej gi di wax ci turu suñu jëwri ñuy sell yi toog ci suñu ginnaaw muy soxna maam jaara Mbàkke ak soxna sooda moom Serigne Xaadim Awa Ba ñu ngi leen di nuyul Mbàkke di leen ñaanal ngeen yàgg fi loolu te wér ah ñaan gi tamit dañ koy jëmale ci suñu sëriñ bu baax bi di sëriñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi événement bi am mooy julli géej gi julli géej gi nag soxna Sooda Xuma mi nga xam ne moom la sëñ bi jël teg ko ci loxoom da cee woo soxna maam Jaara Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ woote bi mu woo soxna maam Jaara Mbàkke nag du dara lu dul bëgg a yaatal bëgg xam ne julli géej gi képp koo xam ne yaa ngi ci biir Ndakaaru sa yëf la nga jëla ko sa bopp waxul taalibe sëriñ mbay rek waaye da cee woote képp koo xam ne rek bëgg nga lu baax muy jullit ba rek muy sax ñi ñu bokkalul suñu diine soxna Sooda Xuma mi ngi ciy woote woote boobu nag soo gisee li tax tey ji ñu teew fii muy soxna maam Jaara Mbàkke soxna Sooda dafa sàkk woon ci moom mu woo képp koo xam ne rek liggéeykatub soxna jaara nga te nekk ci biir daaray maam jaara ji soxna Sooda xam na ne soxna maam Jaara Mbàkke dafa jot liggéey ngir liggéeyal soxna jaara ci poroxaan ci maam jaara yi ci loolu nag ñu ngi ciy woo képp koo xam ne rek soppey soxna jaara nga bàyyiwuñu kenn muy góor muy jigéen képp koo xam ne rek lañuy def ca poroxaan ñor na la soxna maam jaara Mbàkke nee na mi ngi lay woo bu bis muy le 21 septembre bii nga xam ne moom lañu jëm mi ngi fay xaar ñëpp mi ngi fay woo ñëpp ñi nga xam ne nag dañoo nekk ci biir daara ji di jàmbaari maam jaara yi soxna si nee na bu boobaa na ngeen teel a génn di ngeen fa xeewloo ñu àndandoo toog ndax soxna Sooda kat nee na soxna jaara lam la la ma ko joxoon daaw dafa ndaw waaye dama ko gën a yokk bâche yooyu nag soxna si nee na moom mbokki jàmbaaram yi la cay xaar mbokk taalibeem yi la cay comme ni ko soxna yi waxee kuy ñëw na nga sol lu weex jël sa col gu vert tegoo ko fa ndax ñun kat liggéey bii ñuy def day liggéeyal suñu borom kon suñu soxna Sooda woowee it dañ ciy profité wanewaale liggéey bi nga xam ne moom la soxna maam jaara Mbàkke di liggéey ca Poroxaan danañ fa amal ay stand stand yooyu maanaam ay bâche yoo xam ne danañ fa wane lépp luy liggéey bi danañ fa def defit exposition bu am solo boo xam ne ba ñu tàmbalee liggéey ci daara ji ba tey la nga xam ne def nañ ko fa danañ ko fa wane képp koo xam ne liggéeyal suñu borom ñor na la boo fa ñëwee it am ay carte membre yoo xam ne danañ ko fa def am na ay xasida yoo xam ne soxna jaara yoo xam ne ña nga ca poroxaan ñoo ko bind ci seen loxo bopp fédération bi mool ko daana ko fa wecceeku te loolu lépp day delluwaat ci liggéey ba am na fa it ay kaamil yoo xam ne daañu bëgg nañ ko faa wecceeku kon ñu ngi fay xaar ñëpp di woo ñëpp soxna si it day wax ne mi ngi gërëm soxna sooda ci woo bi mu ko woo nit nag dina xam li nit yee eh, amoom te du ko ko jox waaye dafa xam ne ñoom liggéey bii seen liggéeyu maam la mu woo leen ci àndandoo koog moom ginnaaw gi nga xamee ne moom ndigal li ci moom la tàbbi waaye mu woo leen ngir ñu gunge ko ci liggéey boobu kon soxna jaara mi ngi leen ciy woo di woo ñëpp képp koo xam ne rek dégg nga suñu kàddu ak fu mu mën a jote rek ak kooku mën a jottali ñu ngi lay xaar bu le 21 septembre jotee fii ci Yoff boo fa ñëwee di nga gis fi soxna yi toog sol yore yu weex yi tegoo ci col yu vert ya ku fa indaale sa àddee it dinañ la ko defal ci liggéeyu soxna jaara bi kon mbokk yi ñoo ko déggandoo ñoo ko gisandoo woote baa ngi noonu fan la jëm ci diine fan la jëm ci lislaam julli gi seexu naa si Amadou Bamba julli woon ci kaw géej gi mu julli goo xam ne taarix dootu ko fàtte muy génn julli goo xam ne mësuñu nettali ci taarix ku ko mas a def kenn képp la muy Seexuna Seex Ahmadu Bamba ane ku koy woote soxna maam Jaara Mbàkke waaye ànd koog fédération bi ci kàddu soxna Sooda moom Serigne Khadim Awa Ba ba sëñ naar jenn ubbee kàddu gi rek dégg ngeen soxna Sooda ci wooteem bu jotale bi ci mbooleem bokki mbàkke mbàkkeem yi mi ngi leen ci woo rawatina ñi ànd ak soxna maam Jaara Mbàkke liggéey bi te sant Mbàkke bàyyiwun ci kenn bàyyiwun ci fenn bàyyiwun ci ñenn. mbooleem fédération bépp ngir ñëpp xam ne. soxna si daana dem ca julli géej ga waaye nag ren geneen coppi ko da cee am ndax soxna sooda Serigne Mamadou Muntaxa mi borom tubaa tey doo ko woo xamal ko na nañ ko def bisum ndakaaru waaye nag nañ ko def bisum xasida moo tax ñu jiital ca Serigne Youssou Diop jàmbaari Serigne Touba jooju jiite daara xis bu tarxiya moom it taxawaayam ci liggéey bi foo ko takk weesu na ko. na ñëpp àndaan maase ñu waajal bis boobu nga xam ne. kiñ ci war a àndal nag muy jëwriñ ju mat jëwriñ di soxna maam jaara Mbàkke bintu sëriñ Mamadou Muntaxa noo ngi ko ñaanal yàlla yàggal ko fi waaye tey yàggal fi nag sangam bi nga xam ne moo ko jàppale ci liggéey bi muy sëriñ maam Thierno moom sëriñ Moustapha am sëriñ Basiiru ak jëwriñam yi mu ko àndal soxna Sooda moom sëriñ Xaadim Awa Ba ak mbooleem Mbàkke Mbàkke yëpp nga xam ne ànd nañoo soxna si liggéey bi ñu ngi leen ci woo yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm nu fekkee ko tatal ko te yéene jiñ ci am suñ borom kàttan nañu ba ñam ci lu kaw suñ jort wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu